voilà école du nit la woote woon mais dafa mel ni actualité de riche ba nga xamante ni mënuñoo xaar benn yoon sans plus tarder rek dañuy daal di ñëw si li nga xamante ni rek mooy actualité Aliou Sow lan moo gën a fës tey ci euh, xët yi. ci euh, euh, le cas de Karim au niveau justement du fële ca kii euh, CDC euh, yaa ngi dégg mooy la caisse de dépôt et de et de, consignation euh, li bokk ki dafa bokk ci ay critères yoo xam ne boo nekkee candidat il faut nga déposer sa caution donc ma doon laajte tey ji nii ndax justement loolu ma doon wax ci ma bëggoon ñu waxtaan ci ci ci Karim Wade après aussi bu ñu joge ci loolu j'aurais bien voulu qu'on parle de de de des élections présidentielles ou de l'élection présidentielle de 2025 de 24 sans Sidiki Kaba est-ce que c'est possible. sans Sidiki Kaba. élection waaw sans parce que mooy organiser élection yi. Mhm. moo tax ma doon laaj parce que ñu bari dañuy jéem a giññat ndax am na war na ko nekk wala war ko nekk est-ce que il faut une personne neutre loolu tamit bëggoon naa ñu waxtaan ci. la Walf Quotidien sax titré ci. Euh, bi mooy éventuellement euh, parler des coups d'État en Afrique parce que Macky Sall da doon insister démb ci mbir mi ci sommet de la paix boobu euh, ay jam eh bien da doon insister sur les coups en Afrique en Afrique est-ce que coup d'état yi man tey jii nii ma laaj leen ko ñul waxtaan ci est-ce que coup d'état yi am ci Afrique yëpp am na njëriñ waaw wala déet est-ce que les régimes militaires en général surtout qui sont issus euh, de de coup d'état am ñu mooy troisième bi wala ñu def ko deux yaay xool lu la neex. Euh, waaw waaw waaw on va essayer d'aller très vite parce que c'est intéressant li may wax ni numéro un euh, am na. am am na solo trop Mhm. Karim Wade. waaw muy euh, waa voilà. waa euh, PDS lii de ku ko defal sa sa ku ko defal sa jëkk sa àllaaji dana dana dana la nopp. dana la gën a nopp dana la gën a nopp. loo takkal ñaare. <laughs> waaw ma ma ma adressé ma adressé table. waaw ah, bii moom mooy mooy mooy waaw. ma adressé ah aw kon de aw kon de. bii <laughs> moom bii moom saafara kii kuy wut saafara moom lii mooy saafara moom. Mm. <laughs> bu dee saafara kese mooy toppatoo sëy bi waaw. waaw Awa Konde balaa ñuy kii Alioune Sow dafa wax léegi teint noir. Mm. donc euh, euh, mami mami mami mami Babacar. Mm. moom itamit euh, am mbégte trop ci plateau bi teint noir yi fii toog nga xam dañoo gëm seen bopp. à travers Soxna Awa mu daal di may may gaam bi ah, ah, donc donc ñu ngi koy remercier bu baax mami Babacar. bio produit voilà. mami Babacar. produit. Uh, uh, am na solo teint na solo waaye teint clair yi teint clair naturel yi si lañ. waaw naturel yi waaw ci lañ bokk. bëgg naa ci ngeen bokk. parce bokk leen ci ñi nga xamante ne. waaw gis waaw bokk leen ci ñi nga xamante ne néegu loise boo di génn. en tout cas macha allah mu mel ni rek Aliou Sow dañuy commencer ci premier point bi mu ñeel Karim Wade est-ce que dina ñëwaat. est-ce que mën na ñëw lan moo ci euh, situation bu ñu mën a jàpp ndax sànq rek maa la ko wax démb seetaan naa mandataire am maa ngi koy nuyu de passage Abdoulaye Racine Kana moom mu ñëwoon di wax ci li nga xamante ni moom mooy euh, ñëwub Karim Wade te moom si li ñu mën a jàpp rek ci ay kàddoom nee na Karim Wade il sera là il va venir incha allah. oui euh, c'est vrai ñëpp a ngi wax ni Karim Wade il va venir il sera là bon. lu tubaab anglais bi di wax wait wait and see mais bu fekkee ne dañ ci am lu ñuy xalaat rek je pense que ni euh, ku fekkee ni ku fekkee ku koo xam ne dafa déposer sa euh, dafa déposer sa caution bon vous mu direz que Karim Wade 30 millions du dara ci moom mun na ko def pour euh, tour lëndëm en sachant pertinemment que du ñëw. parce que 30 millions du dara ci moom. Mhm. bu fekkoon keneen moo ko déposé koo xam ne xëy na peut-être que xamuñu ko wala il n'est pas bien connu dans le landerneau politique sénégalais. eh en ce moment-là on comprendrait que ni bu ko déposé c'est parce que c'est du sérieux et que forcément dina réussir euh, donc euh, euh, euh am ba nekk fexe ba nekk candidat parce que dina ñëw dina ko gën a fësal mais pour le cas de Karim Wade bon euh, mun nañu yaakaar ni euh, c'est pas parce que dafa déposer 30 millions rek que forcément dina ñëw mais mun nañu am njort bu rafet xalaat ni Karim Wade il sera sera sera bien là parce que de toute façon Karim Wade n'aura plus le choix moo tax mu posé woon ñetti question est-ce que dina ñëw. dina ñëw. est-ce que war na ñëw. est-ce que war na ñëw. <laughs> est-ce que <laughs> peut-il venir aussi. Ah, waaw ah, ah, war na ñëw. war na ñëw mën na ñëw. ndax dina ñëw. ak di ndax dina ñëw. Hmm. waaw léegi euh, est-ce que Karim dina ñëw je pense que ni Karim mënul bañ a ñëw parce que tout simplement il n'a plus le choix. Hmm. parce que pour assurer. sa survie politique. bu fekkee ne bëgg na dara ci réew mi. pour par rapport à son avenir muy pour 2024 bu dee gagné naa élection wala muy après même 2024 Karim Wade il faut que mu ñëw teew pour xeex xeex bi parce que rappelez que ni bi ñu koy génnee fii ci réew mi dañ ko génne en catimini. Mm-hmm. génne boobu ñu ko génne nag depuis génnul fenn yoon bi mu demee Qatar la mës a toog euh, euh, tànkam génnul feneen. te toogaay bi yàgg na yàgg na foofu. dem Turquie boobu doon waaw waaw waaw ak euh, ak sax foog naa. Mm-hmm. donc je pense que ni Karim Wade eh ben xëy na dina ñëw mun nañ ci am yaakaar mais Karim est-ce que est-ce que mën na ñëw. li tax ma laaj est-ce que mën na ñëw mooy sama xel dafa nekk ci benn weccet boo xam ne ki nga xam ne moo doon euh, euh, ndey mbili ji walla bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon exécuter euh, liggéey bi nga xam ne moom la sénégalais yi bëggoon ñu doon ko wooyee c'était une demande sociale par rapport ak justement ñi ñu waroon yóbbu CREI te Karim. doon Karim doon ku jiitu ci ci ci ci liste boobu euh, Aliou Ndao procureur d'alors euh, tegoon muy vingt cinq personnes yooyu Karim Wade biñ ko jugé moom en premier eh dañ ko teg dañ ko teg liñ koy teg mais dañ ko laaj xaalis mm-hmm. te xaalis boobu c'est à hauteur de cent trente huit millions euh, millions de francs CFA am na ay période ñu daan sikki sàkk Karim dina ñëw du ñëw je me rappelle quelqu'un comme Mimi Touré nekk ancienne ministre de la justice Mimi Touré boobu dafa waxoon oui Karim Wade peut bien revenir au Sénégal waaye buy ñëw na indaale un chèque de 138 milliards mm-hmm. est-ce que loolu mi ngi nekk d'actualité waaw wala déet mm-hmm. est-ce que conditionnalité la est-ce que bi ñuy waxtaan euh, ci seen kii boobu dialogue national boobu posé woon nañu problème mu xaalis boobu pour ñi nga xam ne dañ leen tëjoon kaso ba pare defoon leen euh, defloo leen euh, jox tegoon ci seen ndodd ay ay euh, ay amende comme xalifa Sall kaawam dégg naa ni fay na xaalis bi mu biñ ko biñ ko biñ ko biñ tegoon ci ndoddam est-ce que ça serait pareil pour Karim Wade waaw wala déet mm. te loolu ñëpp ngi wax dina ñëw dina ñëw mais kenn posé wul question 138 milliards yooyu nga xam ne dañ ci waxoon wala est-ce que dañ ko ko jéggal te bu fekkee nañ ko ko jéggal kan mooy jéggale est-ce que c'est l'exécutif wala est-ce que c'est une prescription éventuelle qu'on ne maîtriserait pas parce que tout simplement yoon daf ko sóoraale xamuma sa m'étonnerait parce que xaalis boo ko amee oui prescription dafa exister. mais dama xamul ndax foofu cas boobu kii mais en général prescription au moins fukki at la. au moins je crois que le maximum en général c'est une prescription trentenaire ba 30 ans mais sinon man ma ni loolu dañ na ba tey dama bëgg rek damay laajte ñu leeral ma ni est-ce que conditionnalité boobu dañ ko dindi. parce que Mimi Touré moo ko waxoon. Mhm. ancien ministre de la justice. Mhm. léegi nag question bi laa posé état du Sénégal question bi laa posé la justice de ce pays pour que ñu tontu ñu dans les prochaines vingt quatre heures pour ñu gën a am une analyse beaucoup plus approfondie par rapport au cas de Karim Wade qui vient quand même de déposer sa caution te ku déposer caution am nga ni am nañ yàqin ni da ngay ñëw pour bokk ci élection yi. Mhm. surtout que samay radar nee nañ ma Karim arrivera avant la fin du mois de décembre. Ouais. sûrement. ne nañ ma le huit. élection yi ñëw na ba noppi. le huit décembre. Mm xamoon du ko confirmer. Mhm. waaye damay wax rek li xew. donc nag loolu bëgg naa dans les plus brefs délais awa que ñu tontu ñu si. très rapidement parce que. qu'en est de ces 133 milliards bi nga xam ne dañ ko teg ci 138 milliards bi nga xam ne dañ ko teg ci ndoddu Karim may Wade hmm, dañ ko ko baal hmm. baal ñu ko ko wala da koy fay hmm. wala yoon nee na benn période boo xam ne loolu xam ne mën na nekk parce que fii lu nekk gis nga ko fi yoon suuraale ni xëj na Karim eh bu toogee benn diir ci bitim réew xëy na boobu dañ ko kay day effacé wu automatiquement. Mm. xamuma gëwuma ne kon li ma xal li ma la wax nii li ma wax nii man gëmuma ko. lu mu mujjee wax ni euh, ni mu nekkoon bitim réew dañ koo maanaam dafa tëdd penam kon. waaw mais xam mun nga tëdd sa pen mais après du tere nga fay mm. euh, amende bi ñu la teg. parce que ko ameel réew mi ndax amende boobu xaalis boobu pour trésor public sénégalais la. dégg ngeen ni Khalifa Sall fay na bosam. Ah. un milliard huit cent et ñu ah mu jëlee woon ci caisse d'avance bi avec fausse facture. d'accord ñu bàyyi Théo mu àddu ci mhm. loolu sax laa doon wax ñu ko dëggal Aliou si côté boobu. mbirum ah, prescription pénale dafa nekk loo xam ne dafa sensible. Mhm. te fu mu toll nii euh, lenn rek ñoo mën a wax mooy avocat mi. ñu avocat ñoo ñu mën a leeral affaire bi. Mhm. parce que boo xoolee li Karim demee woon yëpp Qatar. kenn xamul tenant ak aboutissant yi. xam nga lu yàgg yàgg nañ ko fi di ko laaj. kenn xamul lan mooy ci ruqu lan lañu waxtaanee. li ñu waxtaanee nag dem nañ ba nga xam ne dindi lañ yëpp nañ tey retrouver ne mbirum éligibilité ak yëpp quoi qu'il en fu mu toll nii boo xoolee majorité sénégalais yi benn affaire lañu ñuy wax dañuy mel ni ki ñu wax Saint Thomas mooy su ma gisee laay gëm parce que boobu ba léegi ñoom ñi chaque année ñu ne la Karim dina ñëw dina ñëw ah on verra li nga xam ne comme ni ko Aline waxee wait and si mu ngi toog di xool ba xam ndax parce que nee nañ sax podoor lay démarrer ay tournéem wax nañ ko seen dëkk ak Touba hmm. façon li ci mënti am rek on verra. on espère dina parce que mandataire am xam na ni que déposé nañu ab chèque bu millions. loolu am na lu bëri lu muy firndeel. mais comme ni ma waxee rek 30 millions du dara ci Karim. Mhm. bu fekkee ni c'est pour euh, leurrer capable na def loolu. pour y gagner politiquement. kon jàpp nga ni politique yegg na ci genre stratégie yooyu nga déposé fekk ni c'était waaw après waaw mais mun nga récupérer sa xaalis. non mhm. boo bokkul. kon loolu dépôt bi du ci dara am na ay garantie moom. donc mais gëm naa ni xañ na dina ñëw quoi parce que Karim Wade mënul bañ ñëw parce que avenir u PDS ci moom la tegu ci ndollam la tegu euh, dafa war a wutu baayam ñu bari dem nañu pour loolu sacrifice yooyu mënu ko def pour élection bii am te du dem te xam nañ yan condition moo taxoon ba 2019 demul kon bi je reste persuadé je ne sais pas c'est une intime conviction au risque de me tromper naturellement que Karim Wade serait bien présent dans les prochains au Sénégal sauf que lenn kese lay laaj encore une fois pour sénégalais parce que dama gis ne kenn xalaatu ko te kenn waxu ci depuis fan yëpp ci milliards yooyu ana naka la def ak loolu ndax xaalisu réew mi la ndax gars yi ñoo ko waxoon. maintenant est-ce la CREI est bonne pas ça c'est encore mm-hmm, est-ce que ni ñu ko jugé baax na c'est encore parce que mi ngi doon laaj pour ñu. rejugé ko. ñu jàll ci deuxième point bi Aliou Sow mu ñeel l'opposition qui déporte son combat de réquisition du ministre comme organisateur des élections devant la représentation nationale hier lors du passage du ministre Sidiki Kaba par aux parlementaires de, de l'opposition comme du pouvoir se sont donnés en spectacle mu mel question bi nga samp moom mooy doit-on organiser les élections présidentielles sans Sidiki Kaba. parce que ñu bëri nee nañu il faut que ñu def comme euh, Abdoulaye Wade ni mu defoon bi muy perte élection yi. moom ak euh, Abdou Diouf. Euh, moo moo kii moo parce que Abdoulaye dañ ko doon def pression ba mu jël. Mhm. un monsieur qui s'appelle Cheikh Gueye def ko ministe chargé des élections mais je pense que ni bon man sama xalaat et là vraiment sama xalaat la mooy Sénégal kenn mëntu fi sàcc ay élections élections législatives yi passé pratiquement l'opposition est a mis en ballottage le pouvoir 82 députés pour l'opposition et 81 députés euh, 83 députés pardon pour le pouvoir benn député la nguur gi rawee benn député la nguur gi rawee opposition bi. Ndakaaru mhm. ñu humilier leen fi ci élection locale yi élection député yi quatre cent mille voix le pouvoir bi rawee comme nombre de de votants la ko rombee la la ko rawee. je crois que ni un million cent mille le opposition bi yëpp boo dajalee seen voix yi dajale. un million quatre cent cinquante mille pratiquement un peu moins de un million cinq cent le pouvoir bi am donc quatre cent mille la leen rawee. jamais dans l'histoire de la politique du Sénégal lii mës fee am te gëm naa ni nguur gi bu ñu mënoon def tout bu ñu am ay possibilités ay stratagèmes pour sàcc ay élections. eh bien waxuma sax yeneen dëkk yi. mais Ndakaaru kenn du leen ci humilier. mais est-ce que gënul dal xel euh, Aliou ñu tànn koo xamante ni c'est une personne qui est neutre koo xamante ni loxoom laalewul ci côté nguur gi est-ce que loolu gënul dal xel quand même. moi je me déjà lan mooy une personne neutre parce que une personne n'est jamais neutre. Ah ouais? il non une personne n'est jamais neutre. mu wane ko ak mu bañ ko wane. une personne ci wàllum àdduna nit bu nekk am nga lu nekk ci sa xel ak ci sa xol. mais tey jii bu dee bokkoo ci opposition bokkoo ci pouvoir mën naa gën a mën a daal. d'accord mais est-ce que euh, c'est parce que da nga da nga da nga da nga da nga nekk ci nguur rek. que forcément am nga ay levier pour sàcc ay élections parce que mbir mi mooy mu am transparence mais est-ce que nekk ci nguur gi boo nekkee ci nguur gi ba pare nga far nekk ministre de l'intérieur am nga possibilité njuuj njaaj te kenn du ko xam su fekkoon ni loolu mën na nekk nee naa la Ndakaaru d'abord. kenn du humilier un pouvoir boo xam ne dañu dañu dañu foqati démocratiquement mairie na Dakaaru ci moom avec 60 milliards stratégique mairie élection législative yi mujje ci histoire politique Sénégal même Abdoulaye Wade bi mu daan jox bi mu tegee euh, Cheikh Gueye ministre chargé des élections eh ben ci wàllum politique maanaam li fi jote xew ci assemblée nationale benn yoon la fi mës a am maanaam opposition ak nguur rawante benn député. nguur gi xaaruñu woon loolu il a fallu sax ñu def seen kamtalaay kattan pour Pape Diop bi nga xam ne ci opposition bi la nekkoon pour ñëw ci ñoom pour ñu mën a à peu am benn nombre de députés bu leen di permettre ñu mën a gouverner à peu normalement loolu coono boobu yépp bu ñu mënoon njuuj njaaj danañ ko def parce que xamoon nañ ni y des risques. kon je pense que ni il faut que ñu waxtaan sur les programmes waxtaan ñoom ñu organiser wu ñoom opposition bi ça serait très difficile parce que léegi ay PV la am na lu doy waar lu Sidiki Kaba wax nee na affaire bi li li génn ci ci ci urne yi kenn mënu koo changer PV yi kenn mënu koo changer c'est impossible nombre yi kooku balaa nga kaa wax sax yenn saa journaliste bi Walfadjri mën na ko njëkk xam que sax ñu bari dañ koy yónnee directement dañ koy PV bi dañ koy taf ci bureau de vote bi bu ñu paree c'est impossible mm-hmm. je crois que ni vaut mieux ngeen waxtaan ci programme réew mi mm-hmm. waxtaan ci difficulté waxtaan lan mooy les besoins urgents comment faire li nga xam ne man daf ma gën a intéressé ci réew mi avec nos ressources minières assez rapidement Théo ñu mën a jàll c'est-à-dire pour rebondir mm. am na au moins courage conviction am ci benn côté mm. parce que bu leen fàttale Euh, perte ko bu mu ko waxee ay droit kiiwam perte ko mhm. te boobu mu était dans le pouvoir pourtant am na ñu ko si ngàññ man je crois que en tant que droit de l'homme man gëm naa ne moom il va organiser des élections libres et transparentes. ku nekk nag ak sa xalaat. kon ñu jàpp loolu donc Aliou Sow malheureusement. temps ah, bi jeex na c' est c' est trop court je le crie haut et fort c' trop court c' est a tellement de choses à dire même sur euh, le. les les coups d'état militaires là sénégalais dañu soxla sama xalaat quand même yokk leen temps bi tuuti quoi c'est pas bon dama koy noter comme ça ah, waaw waaw euh, il faut il ngeen yokk ko tuuti rek ñu mën a waxtaan comme ñëppay waxtaan ñu yokk ko voilà mi mm. <laughs> ah, naa leen ah gërëm naa leen <laughs> daaj bi ngi noonu te xam naa du la may taaw may jël jaajëf te dama ko bëgg